ñu leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd beeg télévision bi 2STV jotaay xibaar digg bëccëg bi li ci gën a fës. syndicat unique wu médecin yi ci dëkk bi nuy waa SAMES ñoom nag ne nañu daal ay négociation yu bees dañuy sàkku ci nguur gi digg nañ nak ne fan yi di ñëw daañu amal préavis de grève campagne bi ci législative yi soxna sox Cheikh Béthio Thioum di Bator Thiam nee na daal foog ñu xoolaat système judiciaire u Sénégal ñaawlu na tamit lépp lu jëm ci wàllu garde à ci dëkk bi Mohamed Morsi di président Égypte bu bees bi ci altine bi jublu na ci liggéey bi fu mu nekk ni nag takku na ngir taxawal gouvernement bu bees ci réewu Égypte mbokk yi ñu leen di dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi laata ñoo frank fàccee xibaar yi dañuy dal suñu natango Samba Ardo ñu leen nuyu maa ngi lay fay bu baax Moustapha Ndoye. Bathie kon yaay ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom la yéenekaay yi xëyee ci ay bis bi nu ñu leen ko jéenjee ci ndorteelu xibaar yi syndicat wu médecin yi ci dëkk bi di SAMES ñoom nag digg nañ daal ne fan yi di ñëw bu ñu moyul ñu dem nag ca préavis de grève li ñu sàkk moo di ci nguur gi bees gi mu ibbeek ñoom ay négociation yu bees di ay waxtaan waa SAMES ñoom daal nee nañu daal protocole bi nga xamante ni signé nañ ko yi nga xamante ni daal bokkoon na ci gestion démocratique bu personnel bi ak wàllu recrutement leeral yi ak suñu natango Mody Gaye faj meeg faju mi bu nu sàgganawul mu gàllankoor ci fan yi ñu dëgmal syndicat autonome des médecins du Sénégal mooy xamale ne su nguurug Sénégal dooraatul waxtaan wi dina banque loxoom ci bépp liggéey yi ñoom ñu ne kat dañoo bëgg ñu bool leen tamit ci ni ñuy yore hôpital yi. préavis de grève boobu li ko waral mooy bu ngeen ko xoolee octobre 2011 déposé nañu fi benn préavis de grève kenn ñu dem grève des euh, décembre ba janvier ministre bi recevoir ñu dañu mujj sax arrêté grève bi parce que gis nañu population dañu sonn te amuñoon assez de satisfaction. élection bi ñëw ñu bàyyi quate mois après ministre de la santé bi mu ñëwee recevoir nañu waxoon nañ ko li xew yëpp actuellement ci santé bi. li ñu ko si njëkk wax mooy gestion démocratique du personnel wax nañ ko ne ko actuellement médecins yi yi ngi fi bàyyi woon parce que 2002 moo fi nekkoon médecins yi léegi. Euh, seen liggéey du faj malade rek si la bokk mais léegi dañuy bëgg bokk si ni ñu gérer hôpital bi parce que hôpital bi ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo si liggéey ak ñeneen. waaye tamit boole leen ci commission yi nga xam ne ñoo joxe wàllu bourse ak affectation yi jébbal leen seen indemnité de spécialisation ak dëkkuwaay waaye tamit saafara jafe-jafe yi nga xam ne loolu l'hôpital yi jànkonteel. boo ñëwee si établissement privé de santé aussi dañuy manqué de de de vraiment de de technique plateau technique amu fa te amul. médecin bi wala en tout fay liggéey du mën a jox population bi ay soins ak ay services de qualité parce que réforme hospitalière loolu la mën a wax même bu amul bu newee doole bu malade bi néewee doole dañ ko war a faj. am na structure ci actuellement amuñu garab yi permettre ñu endormir maladie ñu opérer maladie boo ñëwee su district aussi manqué nañu ay produits parce que loolu ko indi yëpp pharmacie nationale d' doxul fi mu nekk. ginnaaw loolu SAMES mu ngi laaj tamit ñu saytu ni nga xam ne lañ yore l'hôpital yi ci loolu muy woo nguur Sénégal mu xoolaat li mu fi bëgg def maanaam couverture maladie universelle syndicaliste yi ne loolu suñ ko bëggee def faaw ñu xoolaat li nga xam ne moo di plateau gëstuwaat tamit li ñu dippee réforme hospitalière waaye tamit lépp loo xam ne dafa jëm ci yoon ak yoonal ba ci boor bi nga xam ne la ñu yoral hôpital yi te mu toll ci fukki milliards ak juróom jaajëfal Mody Gueye dugg ci wàllu politique bi ci xibaar yi soxna Serigne Béthio Thioum di soxna Bator Thiam moom nag ñi ngi ko investir kon euh, ci list faxas ci jongante législative yi moom nag yëkkati na ay kàddu yoo xamante ni mi ngi ko yëkkatee ci département de Saint-Louis ci benn tournée bi mu fa doon amal euh, soxna Bator Thiam nag ne daal ñaawlu na anémie garde à vue ci Sénégal euh, te tamit système judiciaire réew mi foog nag ñu coppi ko maanaam réformé ko ñu ca Thioune ci micro suñu naataango Moussa Ousmane Diagne ak Abdou Boy. jeex loolu bokkul buñ ne wax dëgg yàlla état de droit lu mel noonu waruñu ko fa woon xalaat loolu nit koo xam ni dañ ko jàpp amul benn assistance koo xam ni jàngul droit ki jàngoon tey droit sax bane ne ar wala koo xam ni avocat tey boo defee délit wala nga am loo def erreur dañ lay assister pourquoi neewoo man sama métier avocat kenn du ma défendre wala dara kon ñu bàyyi 48 heures après neew ma une heure neew ma deux heures détenu yi ñi ngi dund loo xam ni prévenu yi ñi ngi dund loo xam ni metti na ndax da ngay gis ñoo xam ni am nañu ma ca xam ci digg 48 heures dañ leen doon torturer ndax ci diggante boobu amoo benn assistance yow en face de la machine judiciaire ñu lay ñu lay wax ak di la def loo xam ni mën na la pousser ci nga wax loo xam ni da lay dugal quoi ne pas assister ces gens-là aka neexoon ma mën a sol robu avocat ba mën a défendre Cheikh Béthio ndax dund gi ma dund ak moom xam ban genre la te du man kese mis à part que je soxna de Cheikh Béthio waaye adduna bi nañu nañu ñoom rek juge lañu ci Cheikh Béthio li muy liggéey ci Sénégal ak ci adduna kon loolu wax dëgg yàlla euh, bu lu mel ni amee te ma xam ni lu lu lu lu lu lënt la dama naan kat damay bàyyi justice bi ndax kat ah nee nañ pays de droit te mu leer ma ni. pays de droit boobu des na lu baree bare baree bare lu ñu war a soppi te ñun waa MPS faxas looloo ñu tax a jóg muy askan wi ñu leen di taxawu xam mu am benn rupture boo xam ni dañ naan un nouveau type de député soxna Bator Thiam di soxna sa Cheikh Béthio Thioune doon ñaawlu kon anami garde à vue ci Sénégal di sàkku tamit réforme système judiciaire bi moom ñi ngi ko investir euh, ci liste faxas ci élection législative yi ci wàllu politique bi la ñuy des di ba léegi Ousmane Tanor Dieng moom nag mi ngi woon tamit ci diwaanub Saint-Louis Ousmane Tanor Dieng secrétaire général parti socialiste àdduna daal euh, ci ndawi convergence socialiste yi baat yi ñu fi yëkkati woon ci jamono euh, doon sàkku naataango Moussa Ousmane Diagne ak Abdou Boy population bi dafa bëgg changement su population bëggee changement du indiwaat ñi nga xam ne ñoo nekkat ñoo nekkoon ak Ablaye Wade te aussi ñoom ñi nga xam ne li amoon ñoo ko bokkoon kii dafa dem fii kii dem fële mais kon de toute façon s'il plaît à Dieu ñun ñoo nar a gagné fii ci coalition benn bokk yaakaar léegi ñi nga xam ne dañoo jël beneen beneen décision dañ koy assumer et c'est en démocratie kum neex nga ne lii d'accord ma ci lii lay def kooku mais Ousmane Ngom kenn pëtëm pëtëm ko parce que procureur moo ko convoqué man d'ailleurs boobu bi ñu koy bi ñu koy convoqué maa ngi woon Kolda ñu convoqué mu bañ a ñëw suñ ko convoqué te ñëwul dañ ko war a jël si kooku mooy li nga xam ne moom la moom la loi bi wax. leneen li nga xam ne moo matal leeral mooy euh, xaw ma fan lañ jëlee ne fan lañ jëlee ne le un ministre un ancien ministre ou président est au-dessus des lois te du répondre justice xaw ma fan lañ ko jëlee. parce que gis ngeen ci dëkk ñu yi nga xam ne ñoo ñu war dëkki démocratie soo demee France ben comment Jacques Chirac dafay répondre fi mu ne. à la justice euh, bientôt Sarkozy dafay répondre à la justice pourquoi fii Sénégal ñu ne parce que mos nga doon ministre rek léegi kan juge la convoqué doo dem dig tu es au-dessus de loi mais kooku du waxi dara kooku te ku ci insister aussi dañ lay yónnee mandat d'amener ñu la ci diggan kanam procureur bi à la digue nga répondre soo bëggut ñëw de gré on tamit de force c'est ça qui est la loi et la loi elle sera appliquée. doon àddu kon ci bile extrait ci yoon bu wootee ab euh, citoyen ci réew mi ak mbiri mandat d'amener ba léegi ci ay xibaar ci wàllu politique bi ci diwaanub euh, Kolda handicapé ya fa nekk ñoom nag jamono ji ci élection législative yi nee nañ daal daañu voteel candidat bi nga xamante ni wala coalition bi nga xamante ni moom mooy saafara seeni tawat di seeni revendication ca assemblée nationale handicapé yi nag seen association bi jamono ji ñu ngi amal campagne ca diwaan ba reportage suñu natango Bokar Kandé ci village de lépreux maanaam bërëb bu ñu jégleel woylaago yi fii ci Kolda bëccëg gi ñu fa dëkk dañuy daje di waxtaan ak yi fo waaye ñu gis ne nag ñu gën a bëri si ñoom xamuñu seen i ak ak yeleef moo waral nag ki jiite seen i kuréel ci diwaan bi takk ndigam dem di leen rencontrer ñaax leen ci droit de vote ëpp nañu ñaari junni ak juróomi ñaari téeméer woy laago yu ñu recensé ci diwaan bi waaye ñetti dong si ñoom la ñu investir ci liste électorale yi. handicapé parce que bokkuñu si benn liste kon teg tamit dañuy déglu handicapé yi loolu moo tax léegi ñu leen di former ñu leen di sensibiliser pour ñu xam fan la ñu a mën a teg seen tànk pour ñu mën a défendre seen droit ak seen village bu nekk actuellement village boo xam ne ngi ci biir collectivité locale bu def nañu fa ensemble benn réunion de sensibilisation. ñoom nag wax nañu jeex na jóg rek votel ñoo xam ne seeni programme du jël en charge nu ñuy saafara jafe-jafe way laago yi. nañu voté programme du ñu voté nit que ça soit clair ñu ngi nekk ci liste yëpp pour seet ban programme moo mun a moo adapté ak suñu problématique. fan la ñu waroon nag gis suñu bopp ñu jàppale ñu ci baatam ñu jàppale ci zaahir pour que demee bu demee assemblée mun a défendre suñu problème parce que bëgg naa en tout cas 2013 ku fi ñëw fekkee tabax naa kër yëpp. ci village des reclassés maanaam dëkku woylaago yi askan wi dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri ci wàllu wér-gi-yaram ak jàngale. 1950 ba léegi ci teen bii la ñuy jëlee ndox bu ñuy jëfandikoo. ci diwaanu Kolda la ñuy desandi ak waa Malaw di mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest ñoom daal kuréel gi mi ngi amal atelier wu deux jours jagleel ko lépp li nga xamante ni moo di dooleel capacité autorité militaire yeeg civil yi ci ak organisation société civile ya nekk foofee nga xamante ni moo di ci diwaan bi lépp aaju nag ci suqaliku wala sax fàggu ci li nga xamante ni moo di gestion. Euh, des conflits reportage ba léegi suñu naataango Bokar Kanté Malawo di kuréel buy xeex wàllu yërnganaay yu jaarul yoon dafa adopté beneen doxalin ci xeex boobu moo waral nag loolu bi ñu ci yokk mën-mënu autorité administrative yi militaire ak organisation de la société civile yi ci wàllu kaaraange ak jàmm ci senegal gannaaw bi ñëw na ak Sédhiou Kolda moo amal lël biile. ñun suñu taxawaay mooy renforcer li ñu naan société civile fësal liggéey jooju muy def ci yeneen organisation yu naan organisation de la euh, communauté de base yoo xam ne groupement de femmes la ay organisation de jeunes la aussi acteurs étatiques ñoo xam ne nguur gee leen fi tax a taxaw. pour que ñu euh, yee leen ci lépp loo xam ne ay jafe-jafe ay tolof tolof la euh, askan wi di jànkoonteel euh, ci xeex yoo xam ne am na ci seen i as seen biir askan wi donc loolu la waral lër gi ci biir loolu nag ñu leen di tàggat pour que balaa dara di am ñoom ñu am pexe yoo xam ne di dina leen may balaa ñuy taal daay gi ñu xam fu ñuy jaar pour fay. pexe bi malaw sës dafa nekk luy wëyal fal seen di programme boo xam ne tamit dañu koy tëral ci wàllu formation sur les armes légères au senegal fii ci Kolda nag Malaw dafa amal projection de film ngir rekk gëna a xamal la teewee daje bi réew yuy defar arme di ko jaay ci àddina bi yépp ak métit yu ñuy jëlee ci guerre yi. les marques d'État, seen yooyu daal lu ma si gis xanaa di naqaru baax a baax parce gis naa ay jigéen ñi nga xamante ne dañ leen violé ay xale yi nga xam dañ leen rey te ñu nga xamante ne xamuñu salu taxeer yi. Malaw fas yéene naa tamit dugg ci école yi waxtaan ak ndongo yi ngir duggal ci seeni xel jàmm ba jàmm di law ba faaw. ci li ñuy jiite Malaw wax nag lu war a tollu ci juróomi benn téeméeri junni arme la ñu xaymaane mooy circuler ci réew bu ne di ay arme yoo xam ne nag li gën a bëri ci xeex la ñu koy jëfandikoo. yéen yi ay bandi di ko yoroo. ñu dem ci ay xibaar ci xibaaru tàggat yaram ndaxte nag communauté internationale bi nu mu ko amalee Sénégal tamit màggal na week-end bi ñu génn 23 juin waaye nag ñu jagleel ko tamit li nga xamante ni moo di wàllub aux Jeux olympiques yi ñu amal laata nag Jeux olympiques yi ngi ñuy amal nag ci àddina bi ndaxte nag ci lépp li nga xamante ni moom moo aaju ci wàccaay yi suñu réew mi ngi ciy taxaw reportage bu Boubacar Kamel Dieng. C'est comme un, un, un mini Londres 2012. ambassadeur Grande-Bretagne ci Dakar dëkk yu bare bokk ci ay continent yu bare tamit bokkoon nañu ci xew-xew bi ca stade Iba Mar Diop Grèce Australie Brésil kanada Canada France Grande-Bretagne ñu bañ a fàtte tamit Sénégal la. ci noonu nag ci la El Hadj Amadou moom mi nga xam ni moom mooy rek doomu Sénégal bu jot a am médaille olympique mu génn ak li ñuy woowe torche olympique bi waaye nag daf ka mujj jox benn xale tuut tànk pour mu ñëw taal li ñuy wax flamme olympique bi kon ñu mën a door li nga xam ne mën nañ ko méngaleeg Jeux olympiques yu ndaw Sénégal comme ni ko dëkk see yooyu yëpp di defee ci ñaar fukk ak ñetti fan ci weeru juin pour mën a màggal li ñuy wooyee journée olympique. àddina bi yëpp ñuy fête journée olympique te ñëpp xam nañu journée olympique euh, l'olympisme ah dafa nekk loo xam ne ne éducation la donc soo gisee xale yi nekk fii ñëw fii. ah discipline yëpp euh, présenté comité olympique euh, organisé ko donc day wane ne ne ne pour ñu am ay champion dans le futur donc si xale yi lañ ko mën a jëlee ñoo wan leen lan mooy olympisme olympisme c'est brassage des nations olympisme c'est c'est le sport c'est la culture c'est l'éducation yooyu yëpp dafa dafa dafa dafa bokk si si moo tax tey ñëpp ñu ngi koy rafetlu comité olympique Ah, fédération yi ñëw fi yëpp ñu ñëpp ñu ngi rafetlu lii ñu def nii war di ko def chaque jour pour xale yi xam lan mooy Jeux olympiques. mu amoon ay xew-xew yu bare ci wàllu programme bi foofu jëm ci wàllu tàggat yaram ñan ko jagleloon muy tuut tànk yi ñu def fa li nga xam ne daal rafet na trop ñu tàmmu ci kenn ki nga xam ni day def wàllu gymnastique ñu koy wooyee Nancy Bana Thiagué baayam waa Cameroun la yaayam di waa Sénégal. la fee lay entraîner mu nekk à INSEPS Espagne laa ko doon defee Léon. foofu nekkoon nga fa champion wala. nekkoon naa fa champion kay. fee euh, bi ma doon dem compétition laa fa nekkoon champion de euh, de ce sport. xalaat nga au sax remporter benn médaille olympique wala médaille mondiale pour Sénégal. si xalaat naa ko kay. dem jëli jëli médaille quoi. waaw. journée olympique bi nag dañ ko jeexale xew-xew bi nga xam ne dañ doon joxe ay diplôme ak ay médailles délégation ya fa nekkoon na fête bi nag neexoon na trop. ci wàllub mini Jeux olympiques yooyu sax ki nga xamante ni moo nar a jiite délégation wu Sénégal ci Jeux olympiques wu 2012 wax na tamit daal ni euh, délégation boobu mu nar a jiite di ay ndaw réewu Sénégal ya war a teew kon naka ca po mu mag moom dinañ toll lu tolloog euh, fanweeri nit euh, Seydina Diagne la ñuy teewlu ci micro suñu natango Boubacar Kambel Dieng. fi ñu tollagum ni Sénégal am na ñaar fukki athlète ak juróom-ñeent yoo xam yooyu am na fukk ak juróom-benn. fukk ak juróom-ñett yoo xam football la ñuy def am ci juróom-benn yoo xam athlétisme la ñuy def am ci ñaar ñoo xam ni bëre la ñuy def am ci benn benn buy def euh, natation benn euh, euh, benn judo benn taekwondo ak benn benn escrime donc li ñu mën a wax li ñu mën a gum wax mooy bii mooy délégation bu gën a rëy bu Sénégal mos yóbbu ci Jeux olympiques ci ay athlètes yu qualifiés kon déjà loolu suñu athlètes yi dañ leen di wax lañu dañ leen di wax vraiment bravo. pour wax ni que est-ce que dinañ am médaille mën nañ wax ni que ni mën na nekk. ndax am nañu ay athlètes yoo xam ni tey am nañu niveau mondial ñoom ak li leen dese pour ñoom ñu ñu ñu tolloo ak niveau mondial presque ñoom dañ ci tollu ku ci mel ni comme ku ci mel ni ku ci mel ni Ndis Kaba Badji bi nga xam ni bi ñu demee Jeux olympiques wu Pékin euh, Ndis Kaba moo nekkoon quatrième ñaari centimètres moo ko manqué woon pour que Ndis Kaba am médaille euh, ku ci mel ni Binta Diédhiou bi nga xam ni ñi ngi mi ngi soog a gagné euh, dimanche bi passé fële ci Côte d'Ivoire la gagné championnat du monde taekwondo euh, francophone kon mën nañ wax ni que ni am na ñoo xam ne mën nañu compter ci ñoom. ci journée olympique yooyu tamit ñi nga xamante ni ñoo di waa CNOS soxna yi nekk ci biir CNOS nag ñoom organisé woon nañu tamit benn conférence duppeeko sport et bien mbir mi ñu amalee jikoon ca INSEPS soxna yi ca ñoom dañu teewlu docteur Soxna Dioum di cardiologue ci solos seen conférence boobu. njëriñu tàggat yaram si gi yaram lu bari la du tënk ko sax dina xaw a jafe wante tey ji nii lu tax ñu ñëw fi pour wax ci loolu. liñ ci jublu mooy ñu yee nit ñi ñu xamal leen ne que nit ku nekk ak jàngoro bu mu mënti am ak at bu mu mënti am war na mën a yëngal yaramam war na mën a def sport. def sport bi dafa am lu ko jiitu mooy nga dem ci sa docteur mu seet sa yaram mooy booy def sport bi mu am ñu lay seet wala ñu lay encadré ak tamit boo defee sport ba pare ni nga mën a doxalee pour récupérer bu baax. léegi liñ ci jublu tamit mooy yee nit ñi ci la fait que ne yëngal yaram bi. mën na am lu bëri ci njëriñ lu bëri ci lu jàngoro yu mel ni que diabète yu mel ni que hypertension artérielle wala obésité mooy nit ñu am yaram ñi wala graisse bu bëri ci yaram bi. liñ ci jublu mooy tey bu ñu jógee ci conférence bi bu ñu waxee ba pare bu amee kenn ku nga xam ne rek gëm na ne que def sport baax na pour euh, mun na ko aar si yaramam même bu dee benn nit rek sax bu ko gëm bu tàmbali suba ñun li ñu bëggoon am nañ ko. ci kàddu yi docteur Soxna Diouf moomu la ñu tëjee xaaj bu njëkk bi ci xibaar yi jublu ci yéenekaay li ñu xëyee ci bis bi ak suñu naataango Samba Ardo Samba ñu lay dalal. maa ngi lay fay Moustapha ak nag xibaaru sport rek kon ci xat bu njëkk yéen kay bi ñuy wax sunu làmb nag moom mu ne li ci xew nag démb Demba Diop jéggi na dayo lool vrai boucherie la ko duppee nag mu ne tafati nag ba mbax jee deret moo daal di tuuru ñaari mbër yi nag ñoo fa xeex ngir rek jot drapeau bu vieux Sing Fay li ñu nag diggee woon ci signature contrat bi nag kon loolu rek la ñu daal di amal fukki simili ak ñaar ci wàllu xeex ba mbar ji ñu damm bakkanam patal bëtam taxare kon arbitre bi jox ndam li kii di tafatin yéen kaay le quotidien le quotidien moom itam rek xëy rek ne waaw da arbitre bi nag kon moo jox ndam li kii di mbër Tapha Tine nag moom moo waa Bawol mbooloo jël raw gàddu bu septième édition bu drapeau bi Sing Fay bu promoteur Luc ko yéen kaay bi ne démb doo moo amoon liggéey ñaari mbër yi nag ñoo fa jàppanti lu mën nag ñeenti yoon ku nekk rek kon ci ñoom moo tour de ret balaa ñoo dakkal combat bi ndax kat patal benn bët bu ji mu doon nag lu waa muur nag xaru tax rek nañu daañu amal li ñuy wax nag recours. yéen kaay la tribune xëy nag ne boucher bu bawal kon moo daal di nag fagagal mbaru B52 bu mbuur cal la ko daal di kon def nag ba benn bëtam daal di muuru moom tafatin nag dugg léegi ci làng mag ñi waaye nag mu mel ni kon boobu ndam. waa Mbour ànduñ si ndax kat nañu daañu def recours ci wàllu waa CNG bi yéen kay l'observateur xëy nag ne deret kon moo gënoon a fës ci boobu boobule combat niki nag démb la woon contestat Demba Diop nag waaye nag li yëpp kon Selbé Ndom waxoon na ko semaine euh, kon balaa nag jàkkaarloo bi Selbé waxoon tey ci yéen bi nee nag kenn si mbir kon mu amal sacrifice lu ko may nag kon deret bi doon na rek gën na daal di bari. moom nag Tapha tin addu mu nag euh, dem nañ ci ardo ñetti yoon waaye nag moom Bombardier moo gënoon a euh, sonn terewul nag manit maa ngi doon rek miir kon ci boobu combat yéeni kaay euh, le pays xëy nag ne Selbé Ndom kon moo waxati waat rek li ñu wax nag kon ab dëgg nag ci yéeni boobu boobule kaddu yi mu yëkkati woon ci combat bi lépp moo firndewu ne woon na nag deret kon dina bari ak su muyuwul sax kawoo tax yéeni bi ne Selbé Ndom mooy la vedette tey mooy yëngal arène bi sport football ak yéen kaay stade moom nag mu ne euro 2012 demi finale la kon mercredi ak jeudi Portugal Espagne di ab derby ibérique mu nar nag doon ab match revanche ci ñaari équipe yi Portugal la ñu éliminé woon kon ci huitième de finale yi ci mondial atum 2010 kon Espagne moom la ñu dooroon 4 buts à 0 ci ab match amical beneen demi finale diggante Allemagne ak Italie lay doon kon mu di nag le classique des classiques diggante ñaari réew yi ëpp ay raaya ca euro. Europe waaye nag Allemagne mosul daan réew mu Italie Moustapha Ndoye yéen li ñu xëyee ci wàllu politique baat ak yéen kay eh, li xew moom nag mu ne Karim Wade kon mooy cible eh, numéro un ci wàllu nag ay audit ak alal bu dëppawul ak yoon nag yéen bi ne ay pression la ñu amal ngir ñu jëbal ko waaye yoon ngir nag ñu mën koo déglu kon fi mu nekk nag moom doomu Maître Wade bi mu ngi nag ci diwaanu réewum France rek tax nag ñu bari kon gis na dafa teew ngir effacer yenn ci ay preuve yi ko rek mën a daal di nag suuxal yéen réew mi moom nag ne Karim Wade kon mooy jaab njale kon ca diwaanu Europe mu teew fa nag ngir rek bañ yooyu la wuy ji kon ay convocation yu enquêteurs yi yéen bi ne Karim Wade nag mooy wut Europe ngir nag bañ ay audit ci ay kaddu nag nañu sax Karim euh, moo ne euh, exil diplomatique moo ko gënal fuuf ni ab humiliation wala sax inculpation wala it li ñuy wax nag mandat de dépôt yéen kaay enquête ne nag luubal alal bu dëppawul kon ak yoon ci diwaanu euh, bitim réew Washington ak Paris ñooy enquêtal réewum Sénégal ab dossier nag la ñu fësal ci anam

waaye nag moom euh, donc mooy daal di dogal yéeni kaay laas ne nag Macky Sall moo fësal jaar-jaaram kon ci yéeni Jeune Afrique moom nag mu ne konte wu ma ci bàyyi ci yaay wala sax cib mentor li ma am nag man maa ko liggéey doon ci sax métti woon na lool waaye nag lépp li ma ko may nag doon na topp sama digalu ay waajur ci yéeni bi nag Macky Sall ne fi mu nekk nii nag xalaatuma soppi gouvernement bi du ma yétt fësal sama alal ndax kat loolu bokk na ci rek nag ngir wàññi yeneen ci ay euh, problème euh, ci yéen kaay euh, le soleil Macky Sall nag mooy rek daal di xamle nag ci xatam bu njëkk rek ne Hissène Habré nañ ko rek kon jugé fii ci réewum Sénégal nag mbirum Habré la Union européenne jébbal gouvernement bu Sénégal ginnaaw nag benn ci seeni ay session mu def kon at ginnaaw ba Maître Wade fësale woon ne nag ki fi ne woon jiitu réewum Tchad daañu ko delloo réewam moom nag ci Hissène Habré mooy dund réewum Sénégal kon fii ci Ndakaaru ginnaaw ba mu ñàkkee nguur gi ci bu coup d'état contre atum 1990 la woon yéeni kaay direct info moom xëy rek nag euh, ñëwaat ci anniversaire bu waa M23 moom nag mu fësal rek ay kàddu Aminata Touré njëwriñ ber wàllu nag yoon ne lépp dina daal di leer nañ kon ci wàllu ay ñaawteef ak sax mbirum nag bakkan bu rot rek Alioune Tine moom di sàkku nag amnistie maanaam ñu baal te teggi loxo ñi ñu jàppoon kon ci le 28 juin yéen kaay express news moom xëy rek jox moom kàddu gi Farba Senghor ci xëtam bu njëkk nag moom mu doon nag amal campagne ci mbedd Dakar Plateau mu ne nag dafa sax ruslu nguurub Macky Sall di féete anniversaire bu M23 Farba ne c'est scandaleux Moustapha mu nekkoon yéenekaay li ñu xëyee ci bis bi ak Samba Ardo Ba mbokki téléspectateurs yi fii la ñuy tëjee jotaay xibaar yi digg bëccëg bi ci seen télévision 2STV ñu leen di gërëm leen sant ci seen teewlu di leen ñaanal kenn ak jàmm wasalaam